waaw ki nga xam ne moo di Ama Baldé mu toog cinq ans sans lutter euh, keroog euh, mu waroon daje euh, Gris Bordeaux semaine passée y a déjà quatre cinq six jours Gris Bordeaux daal di dugal médical ce qui veut dire que combat boobu moom c'est mort pour cette année. waaw combat boobu médical dugg na reporté nañu combat bi. Hmm. mais mu méttee di torop nag ndax Gris. Hmm. ba mu bëree yàggul. Hmm. ama booba léegi. quatre ans yi teg na. ba pare cinq ans dugg année bi. Hmm. ndax comme maam ak papa Sow la gëj a bëre. yor avance ama balde mu dem ay at. dem ba ci biir. Hmm. promoteur bu mu dëkkal di doomu Pikine. ne ama la bëgg a sauver ndax problème bi lig amoon. daal ne da koy tëgg. su paree da ko mu bëri ji comme maam ak balde pour jàppale ama. ndax soutien de famille la. Mm. bañ régulariser combat bi jàppoon ko le 9 août. ne mm. mais Ama njëkk am blessure. Mm. ñu koy masaw ñu dem ba jàppaat ko. ba dernière semaine comme ni nga ko waxee rek semaine bi ñu génn nii. Gris Bordeaux dugal médical. ñu reporté waat làmb ja mu méttiwaat trop nag. ndax Ama werante amul ci ne fi arène nationale bi am seeni tool la. fa daan foyee. ñu ngi yàkkamti rek Ama dugg si fi waa Pikine nii ëmb ko encadré ko ñu xool mbooloo Ama nan lay def ci arène bi am na ñu ne arène bi tuuti na ci Ama. parce que ba léegi bëreegul ci arène ba léegi bëreegu fa xale yi woyal ko Ama yi. te nee na moom bokkoon na suñu fa doon liggéey. moom day ambiance waa moom def na loo ci arène ba mi ngi yàkkamti rek ñëw ci bëre fa. Hmm. waa këram yaa ngi fay bëree rakkam yi ngi fay bëree euh, ay doomam ah, ay doomam ak jarbaat. Hmm. waaw laa bëgg a wax ndax ku ci mel ni Pokola jarbaatam Euh, Jacob Baldé mm. doomam la ndax doomu magam la ñoom yëpp ñu ngi bëri ci arène bi mm. léeg-léeg mu ëmb leen encadré leen léeg-léeg mu indi leen yéeg ca kaw waaye léeg-léeg sax am na boo xam ne yaram bi daa tàng mu jóg cent mètres sànni kurpeñ ne dafa nam ma bëre fii ba nit ñëpp di ko xaar mais suñu borom ñoo dogalam mm. ama nag dañ koy masaw li ko dal métti na trop ndax comme ni ma ko waxee léegi rek su soutien de famille la buñ sa yoon day tàggook contrat bi dem witi leneen mais xalaatoon nañ ne dana ko bëre mais Gris Bordeaux dugal médical. médical nag coow yu bëri na ku ci nee ngi wax médical yi ku nee ngi wax médical yi mais daal doy na waar xam naa ne daal amaali ko dal métti na. mais ñu ngi koy ñaanal rek ndax natt moom bu la ci kenn ndax suñu ya suñu borom da ko fee teg ngir jaami mais soo ko gëmee. Mhm. suñu borom indi xéewal. Mhm. ndax même boo ko gëmul du ko tee am. Mhm. mais bu suñu borom bu la tegee tegee nattu nga nangu ko ba pare sant. gëmal na xéewal a ngi ñëw. yàlla na xéewal dal ci koom dal dal ci ñëpp nag. ba ñëpp jariñu mhm. man ci li ma bëgg mooy euh, blessure yu récurrent yi nga xam day faral dafa bëri ci làmb te bu njëkk daanoo am lan moo waral loolu noonu waaw am na ñu am na ci bu ma contre contre ci ñaar sax mhm. benn bi dama ko contre ndax am na ñoo xam ne dañ lay woo sëriñ da lay wax jékkoo mhm. te lay xew suba damay bëgg ñu bàyyi ko borom suba te moo ci ëpp nag te loolu man dama ko contre ñaata yoon la sëriñ seetal la làmb ne baax na nga dem ñu daan la ndax sëriñ bi ñaanal ma yàlla nga koy wax liñ nga koy ñaanloo moomu ko ndam yàllaa koy joxe loolu moom dama ko contre dem seet bañ ne la baax na nga bëre baaxul nga reporté ko man loolu dama ko contre ndam kenn rek a koy joxe mu yàlla lii xew suba bàyyi ko borom suba ndax même combat yi yi ñëwagul lépp sotti na yàlla dogal bi sotti na ñun ñoo xamul kon li war a am kenn du ko dindi sëriñ bi la foomu loolu làmb dama ko contre man beneen bi ma contre mooy nga dem ak ñoom li ñu def ci làmb nga dem ba dugg ci weeru combat di def yenn cot yenn entraînement yu intense yi nga xamante ni day indil yenn choc ba nga am ci blessure bu yàq sa làmb loolu c'est pas professionel parce que boo jëlee combat mu dem ay at wala mu dem ay weer lu combat bi gën a jege da nga war a nag di def maintien pour le jour ji di am récupération bu doy wàññi yenn choc yi pour nga mën a remplir sa contrat. Mm-hmm. booba nag boo forcé ba tey yenn entraînement yi mel ni xale buy dugg ci dugg ci làmb loolu boo ci amee blessure man loolu ànduma ci. Mm-hmm. insident nag mën nga def benn choc boo xam ne dafa lay bett doo ko tey mu gaañ nga gaañu ci su boobaa dañuy xam ne euh, blessure boobu mën naa cee ànd. Mm-hmm. mais daal sëriñ di la formula làmb ànduma ci euh, bu demee ba jege nga def benn erreur bu yàq sa làmb loolu ba tey ànduma ci mm-hmm. euh, Ibrahima. parce que mais ñi ngi ñaana rek ngir wér ndax contrat bi du la wàcc. Mm-hmm. saa woote ne da koy bëri ci mm-hmm. waaw contrat bi du la wàcc. bu doon dalay wàcc sax nga ne tàntan mais li coow liy bëri bëri contrat bi du la wàcc. fi mu ne bu giri ba indi médical day bëre waat kon moo lay wan da ngay am yërmande ci ñaari mbër yëpp nag. Mhm. parce que ñaari ñaari ñaari ñaari bis yu mag lañ reporté Balla Gaye Eumeu Sène Gris Bordeaux Ama Baldé. waaw waaw Balla Gaye Eumeu Sène bi it noonu la demee parce que ñenn ñi sax dañ naan Balla pare wutoon pour bëre mais Balla moo forcé promoteur bi pour mu régulariser combat bi. Mhm. nekkoon na officiel. Mhm. pour mu remplir ñeenti contrat yi mu signé woon ak Gaston Production. kon kooku euh, bu sañoon dafay bëre. mais am na ñeneen nit ñu ne. ak bi ñu demee présidence ñu dem ba ñëw seen fans yi dañ leen a mere ñoom pii bu ñu leen tëggee du ñu ñëw am na ñu wax loolu. mais man du ma wax loolu. man li ma gëb rek mooy ki la bëgg ta yàlla tax même man na la mere. mais boo takkee ngemb di dem wala ngay waajal da lay gunge. mais daal foofu it loolu laay waxaat rek ñoom daal nañ gën a professionnel. ndax blessure yi yàq combat yi mi ngi bëgg a bëri. Mm. te lii bu continuer mën naa dem ba promoteur yi. non da nga naan sama xaalis laay jël sama cinquante millions dugal ko ci benn ruq te à tout moment lamb ji mën naa yàqu. parce que euh, parce loolu la mu loolu la wax. sànq ah. rek bañ ah, dama dégg ay promoteurs yu koy wax. parce que dafa ne lii ah. mujjee préféré nga dem jëli benn conteneur ñoo jaay ko. su lu gaaw mooy gën a indi bénéfice que ngay jël sa xaalis di ko dugal si lamb. waxoon naa ko te dégguma Makan dama dégg yeneen i promoteurs ñu ne VIP yi ni ñu continuer saa woo tëggee sa combat à tout moment rek dañ lay dugalal dañuy dugal médical yàq sa làmb nga jël sa cinquante millions mm-hmm. bàyyi ko ci benn ruq mu toog di xaar mm-hmm. loolu bu naree continuer mm-hmm. dañ na ñoom dañuy arrêté dem witi leneen te ginnaaw ba ñoom du promoteur yëpp leen mën a tëgg nañuy gën a professionnel rek ci ni ñuy entraîner bu ko defee au moins contrat yi ñu mën ko di remplir ndax saison bu amul ay combat VIP sax day mel ni saison amul kon moo lay wane mbëri nañ gën a professionnel te ñu sóor ne promoteurs yi ñooy bailleurs yi bu dee combat boo boo investir ba mu des dernière semaine rek mu reporté nga toogaat di xaar mën na tax promoteurs yi bàyyi man gis dégg naa ay promoteur bëgguma tur nee nañ ak doxalinu làmb ji ñoom dootuñ jël seen xaalis di ko dugal ci làmb ah c'est vrai waaw waaw waaw bëri na yi ko wax nee nañ dootuñu dugal ndax mbër daana soo sooxaale blessure sax mais moment bi su nee ba sëriñ man laa fomm loo làmb loolu c'est trop risqué pour promoteur di ci dugal xaalisam. te mm. lii bu continuer danañ dem ba lii day dàq promoteur lii mën naa dàq promoteur yi. parce que si loolu rek euh, Makane moo ngi jox information ni ni déwén moom si espoir la bëgg a yëngu ba pare mën nañoo xaaraat euh, CLAF. CLAF bi amoon 2006 CLAF 2024. waa loolu déggoon naa ko ndax ci jamono yi la am na ku ma woo koo xam ne papaam la ci conseiller mi la. Mm. bi mu déggee rapport combat Balla Gaye bi nee na ma Makane boo mooy combat VIP dana ko wàññi. waaw parce que bu naree continuer nii parce que ñoom seeni i combat dafay cher. Hmm. imaginel nga jël ñaari mbër ku ne ko jox ko trente millions. Hmm. mu dem tëdd ay weer ngay waaj mu des nag say publicité ndax hmm. promotion bi da ngay fay. dem ba mu des ay quelques jours rek ñu indi médical sa xaalis tëdd fa. ñuy toog di xaaraat bien dana métti ci mbër mi ndax booy reprendre duñ la joxaat xaalis. dana métti ci moom. mais promoteur bi moom it xaalisam dafa waroon a pare dem defi leneen. loolu bu continuer mën naa tax promoteur yi bàyyi làmb ji day dem ba combat bu mag dootu yomb ndax am ñaan VIP yi jaratuñu tëgg ndax à tout moment dañuy dañuy indi médical yàq sa làmb loolu nag day dafa bokk ci li yàq bu dee si charge bu ñuy teg seen muscule yi la nañ ko wàññi gën a professionnel au moins tàkkusaan yi mën a jàll làmb ji mën a jëm ci kanam hmm.